coronavirus boo déggee corona daa nga dégg ci biir couronne mooy virus yi nga xam ne dañu mel ni couronne maanaam dañu ron donc famille yooyu nag dañoo nekk ñoo xam ne léegi-léegi rek dañuy toggum yaag rek gis benn bu ci soppaliku loolu la ñuy wax mutation ci tubaab gis nga virus bu xasee soppaliku rek mooy génn na ci famille boobu mel na neneen maanaam melokaan boobu mu mel boo jëlee lépp mooy changé bu dee faj ñu ko doon faj day changé bu dee seet test yiñ ko doon seetee pour gis ko day changé bu doon sax tey vaccin bu fekkoon am nga vaccin pour coronavirus beneen beneen bu bees génn wala bu changé génn baaxatul ci moom nekkatul ci moom kon day nekk li ma koy faral di wax bees tàq daji ci paquet. waaw léegi beneen bis des ñu ni euh, euh, dafay wàlle wàlle boo xam bi bu jéggi dayo la beneen bis des mooy que ni euh, bu fekkente nit am na ko. yamul ci wàll la mais nit ki bu la laalee sax bàyyi na la ak doomu jàngoro ji xam nga dañu waxoon bu nekkee sa loxo na nga raxasu bu nekkee boo tisulee na nga def nii donc loolu bu fekkente ni euh, raxasu nga amul problème mais pour ñoo ñu koon rek réglé nañu pour ñuy raxasu wala ñuy fat seen bakkan bu ñuy kii wallu demee noonu mais ñu ni nag ñeneen ñi naan la ñuy def bu aar leen xam nga tey boo xooloon 16 millions de Sénégalais yi ñan nga fiy wax bala ngay lekk raxasu ñu raxasu ak donc xëy na bu matee 5 millions ci la yem boo xoon ne booy defal nii. nga sant que seize millions de sénégalais bu fekkente ni à peu près am na euh, sept million wala deux wala cinq millions yu ko si def am na ñu ko ci deful donc majeure partie bi maintenant ñooñu nga xam ne defuñu ko ñooñ tamit doo toog rek di xool il faut que jéem seet nan nga leen def ba aar leen léegi nag ñu ni pour ñi nga xam ni aussi ñoom am nañ problème ñu ni léegi comme dafay wàlle te wàlle bi aussi bu nit ñi dajaloo ci lay gën a bëri parce que xam nga wax nañu léegi man bu ma ñi ma wër bu fekkee nee benn nit moo nekk ak man kon benn nit moo am risque par contre bu ma tislee fekk ni fii dafa nekkoon euh, xew wala dafa nekk jumaa gis nga jumaa yi nu muy feese gis nga jumaa yi nu ñuy saqate boo duggee ci biir jumaa ñaata nit ñoo fa nekk rayon un mètre bi nga wax bu ñu nee ñu ngi julli jumaa sa li la wër ci un mètre ñaata nit lañ bari na boo demee marché nga dem Lendeng léegi ñaata nit ñoo la wër nga dem marché central ñaata nit ñoo la wër wala nga dem ci luuma bi ñaata nit ci rayon un ñoo fa nekk xam nga kon boo gisee ñu naan nañu bàyyi bii ak bële parce que risque bi dafa gën a bari parce que bu fekkee nee ni jumaa la nit ñi dañuy gën a bari concentration dañuy gën a takkaloo kon boo tislee mu mën a dal fukki nit dafa yomb par contre fekkee neen dañ ni eh, bi nit ku nekk natoo këram boo toogee sa kër xëy na sa kër yow ak ñaari nit ñi dafa nekk donc boo tislee ci ñaar nit lay yem même boo jël sa précaution xëy na buy wàll ñaar nit lay wàll eh, même jaamu yàlla pour mu mën a nekk ñaar day daje ci njëkk mooy nit ki wér ñaareel mooy nit ki am sécurité nit ku feebar boobu am na yenn yoo xam dañ la koy wàcce te jumaa aussi dafa am ay charge comme ni ñu ko waxee loolu aussi ñi jàng ñëpp xam dañ ko xam nañ jumaa dañ la wax condition yii mooy daje pour nga julli jumaa condition yi bu dajewul waruloo julli jumaa condition yi bu amee yow war nga dem condition bii bu amul yow waroo dem comme nag nit ñi kenn xamul kan moo am kenn moo xamul kan moo amul kenn mënul téye kii kenn mënul bàyyi kay ñu ne nañ ko bàyyi rek xëy na bu ñu ko bàyyee ñaari jumaa lay doon ñetti jumaa ñeenti jumaa ñaar ñu ko kenn nekk am sa wér yaram ndax wér moo jiitu lépp soxla olof Ndiaye day wax ni bu nekkee ñaar rek c'est parce que da nga wér ba pare mais bu fekkee ne soxla woo leneen lu dul wér loo def lu dul wér rek wér moo la koy gënal donc pour wax encore une fois di daanelee fofu que ni euh, arrêté buñu arrêté julli yi neexuñu ñun daf ñu nakari ba suñu biir xol mais lolu dafa am lu ko gën situation moko ko laaj situation bobu nak bu démé passé rek après ñu dellu ci waat suñuy jumaa delluwaat suñuy daara